Macron la ñu indi. surprise de Macron. <laughs> mon Dieu on n'en veut pas ñu jàll ci l' observateur Chérif tàmbali koog moom. l' observateur xibaar yi bëri na mbirum justice ak diffamation Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang procès décisif cour suprême kon fixé na audience bi ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2024 ñëwaat également ci meeting euh, de Paris investiture. parti socialist AFP week-end bii mujj mel ni kon APR moom moo ci des Amadou Ba mooy candidat bu Benno Bokk Yaakaar gis ko rek ak li nga xamante ni mooy démarrage bi yu ni mel ay borom xam-xam ci wàllu politique ak communication kon ñëw nañu rek ci li nga xamante ni mooy léthargie bi daal li gars yi ne ko dafa mel ni commencé na nag di dund politique ci ñoom waa majorité bi yeneen kaay bi def na benn gëstu bu am solo rek ci soxna yi nga xamante ni yenn saa yi dañ leen di teg fitna rawatina kon mbiram agression sexuelle certaines victimes yoo xamante ni rek boo xoolee séquelles yi ak ni ñu koy dundee euh, ba ci sax dem ba bañ góor loolu yéen kaay bi daal dinañ ñëwaat Daara Jolof histoire benn vol boo xamante ni gis nga ko finalement sax dafa mujj rek euh, daal di rendi benn cousin am yéen kaay bi ñëw également ci li jaaw doon wax ci international bi ak loi sur l'immigration fële ca France euh, jeexital ci étudiant Sénégal ya fa nekk ak tamit installation caution boo xamante ni mbiram retour rek bu fekkente ni étudiant étranger la sélectionneur bu Lions yi jëm ci wàllu handball tuddee à la découverte de Metsu du handball Metsu nag mooy Birina Metsu mi nga xamante ni moo njëkk a Sénégal finale coupe d' également euh, quart de finale coupe du monde c' était en na ko yàlla avec Ousmane Sonko qui contrôle la justice ab laaj la boo xamante kon yéen kaay bi laaj na ko ndax mbiram Ousmane Sonko ci dossier yi nga xamante soxal na ko yëpp gis nañ quand ay coppite yoo xamante am na ci euh, daanaka euh, kenn du xam fan lay mujj lu ci bokk sax mooy parquet bi xam ni justice moom moo koy yilif ñoom sax des dafa mel ni kon euh, de plus en plus euh, un parquet qui échappe de plus en plus au contrôle loolu tamit mel liberté boo xamante ni gis nañ ko ci procureur yi yooyu procureur nag euh, pour l'information tey sax ñu ngi war a Dakar muy conférence des parquets ci teewaayu ministre de l'intérieur Moundiaye Cissé ministre de la justice Moundiaye Cissé am na loo xam na ko ci lu ni mel Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko seen audience France muy Prytanée militaire bu Saint-Louis yéen kaay bi euh, daal dina ci ñëwaat et tamit kii c'est un ancien de cette école muy le ministre des finances mi ngi ci xëtu yéen kaay bi taux a toujours dépassé quatre-vingt-dix Ba daal ñëw ci exécution budgétaire fii ci Sénégal. ci programme. tarifaire 2023 2027 jëm kon ci wàllu euh, ndox mi gis nga ko rek ak courant bi moom sax la daal tudd mu ne de l'eau dans le gaz ak retard bi mu daal nemee ko ci euh, production yaakaar loolu nag Senelec moom moo ko defoon et puis tamit euh, société bi nga xamante ni muy Senelec dina continuer kon di louer ay centrales thermiques pas de baisse de tarif prévue à moyen terme jëm rek kon ci wàññi gi nga xamante ni ñu ko doon xaar ci courant bi ak ci bi ñu nekk ak coow li nga xamante daal ni koy jur mel ni kon interopérabilité du système euh, transport interopérabilité voilà ñëw rek ci li nga xamante ni kon mooy TER beeg BRT bi 3D Tata sur une même voie jëm rek ci li nga xamante ni kon euh, ñoom mën nañoo bokk yoon wi mën a jaar ñëwaat également ci Ousmane Sonko mi nga xamante ni devant la Cour suprême 4 <coughs> euh, janvier la poussière bi daal di nemmee ko nag ñëpp a ngi saqat fii ci Sénégal contentieux kon jëm rek ci ñi an mbalin meeg yu mel 8 milliards yoo xamante ni moo waraloon coow li Le Soleil daan ñëwaat ci tentative pour participer ci élection présidentielle yi échec ak mat jëm kon ci nga xamante ni mooy Ousmane Sonko démb muy caisse de dépôt consignation ba ci ministère de l' intérieur noonu tëjooloon seen i bunt Ousmane Sonko avocat kii euh, di euh, mandataire bi ba ci sax euh, huissier bi xëy na waa Sénat rek ñoom ñoo leen ba tax na sax ki jiite journal bi yaa xam bay am na loo xamante daan na ko ci wax Macky Sall ñëw kon ci plan bi jëm rek ci wàllu dëkkuwaay yi mel ni kon am na lu mu ci laaj ci wàllu finalisation démb sax gis nga ko député yi voté nan ci assemblée nationale. waaye ay code jëm ci code de l'urbanisme ak code de la construction. libération lu mu xëyee kilifa gi nga xamante ni dañ faatoon moom nag gérant station service la fële ci Touba enquête bi accablé na ñaari pompistes yoo xam ne jamono ji ils sont placés en garde kon pour nécessité de l'enquête finalement déféré na sax pour complicité de meurtre découverte troublante enquêteurs yi dem jëm ci li nga xamante ni kon mooy li euh, xew ci lu mel ak ki CDC ak ñi nga xamante ni kon moom ministère de l'intérieur tëj nañ seen buntu kii di Ousmane Sonko ñëwaat ci li nga xamante ne rek mooy après une sortie sur les contrats d'armement Fatou Kiné Cissé la daal tuddi moom dañ ko daal di arrêté rek ngir ngir koy daal di tuddi ci lu mel ñu xool tribune. Euh, ñëw ci campagne arachidière ba tax na kon milliards de francs CFA de perte pour les producteurs ci la yéenekaay bi daal di def taxaw seetlu. Walf ñëw ci Ousmane Sonko ak dépôt candidature leader bu PASTEF gis nga ko Sonko se livre aux sept sages jëm kon ci conseil constitutionnel koy jox euh, fiche foofu la ni mujj. ñu xool les échos. ak mbiram Ousmane Sonko moom ak Mame Mbaye Niang ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2024 ca cour suprême euh, gis nga ko rek procès bi gën a dangereux nag daanaka pour Ousmane Sonko parce que en cas de confirmation décision bi ñu jëloon ca cour d'appel moom nag il sera depuis l'affaire Khalifa Sall. rabat d'arrêt plus suspensif bu ñu sukkandiku ci yenn kaay bi conseil des ministres Macky Sall mi ngi matérialiser promesse yi jëm ci daara démb sax nommé nan euh, boo xamante ni dénk nañ ko daara yi ndax bu njëkk la woon. comme ni nga ko promettre woon samedi fële ca euh, Dakar Arena kon président jëfe na la mu waxoon. ñëw ci li nga xamante ni mooy mbiram jamaa mi fi doon tudd fii ci Sénégal am na tamit benn mission prospection boo xamante ne gis nga ko euh, jëm rek ci cinq jamaa ak tamit euh, gis nga ko Karaye ca naa di nekk mémoire bu ñu def sax ca faculté de sciences relevé na kon manque d'outils yoo xamante ni mën naa tax ñu mën a wër lii di jamaa bi et puis Sonko accentue euh, la pression ngir rek mën a bokk ci yooyu élection ñu xool laas Sonko ak Mame Mbaye Niang combat suprême entre Sonko ak yi def nañ ko fële nga xamante ni moom mooy ca Touba muy greffe euh, ba ginnaaw bi ñu ko réussir fii Sénégal am na beneen succès euh, nag ci hôpital bu Touba. Mm, Vox Populi. waaw ah, daal di ñëwaat ci euh, soo errance bi nga xamante ni rek Sonko ak ñi mu àndal daal démb daanaka sonn ci ay barabu administration yoo xamante ni ñu ngi ko doon def ngir mën a bokk et puis Alioune Tine moom nee na il faut benn dialogue boo xam ne dernière chance ñu mën a waxtaanaat nee na mënut a ñàkk moom mi jiite Africa Jom Center. ñu jàll daal di ñëwaat ci li nga xamante ni rek euh, mooy euh, émigration beeg arraisonnement li nga xamante ni kon marine nationale mi ngi koy def durant ces sept derniers mois mel ni kon chiffre baa ngi noonu neuf mille cent quarante et un candidats yoo xamante ni kon jàpp nañ leen ñu ngi ni ak fi ñu a jugee gu ni mel enlèvement ci Kër Massar euh, Mohamed Abdallah nag junior âgé de trois ans détail rapt maanaam ñi nga xamante ni kon ñoo ndar keppoon gone gi daal di koy téye yenn kaay bi ci la daal di ñu jàll Ousmane Sonko kon incertitude ci wàllu parrainage ci wàllu député ba léegi rek ndem sax gis nga ko rek ñoom am moom moyen risqué mais nag am na ci yoo xamante ni ba léegi amuñ ci assurance ak risque yi nga xamante ni jëm kon ci validation seen candidature ndax kii mi ngi ci yoon ñaar ñi génn nañ ci wante dafa mel ni kon am na lu des. Sud Quotidien. waaw ñëw ci bataille ci wàllu réintégration liste yi électorale procès kon Prodac beeg yu nu mel Sonko sur tous les fronts la yéen a Amara Diouf ah Amara nag muy gone nga xamante ni ah, yaakaar la woon ñu ne xëy na dina def surprise moom Aline daal di koy yóbbu el tactico nag dafa mel ni kon kontewul ci xale bi ngir def fi tactique fa li nga xamante ni moom mooy ca Côte d'Ivoire ah, joueur yi la koy exclu amul benn joueur boo xamante ni mi ngi fubal ci championnat bi rawatina yéen waa Mbour amoon ngeen yaakaar bokk ci woowu leen. xaar leen ba beneen kan naata ekidam daan ñëwaat ci Tëngéej FC Jaraaf qui <laughs> remportera jëm kon ci déel Cap Vert loolu la yéen kaay bi daal di ñëwaat mm, football ba tey ci stade moom am na benn indice boo xamante moom Aliou Cissé jox na ko ci 27 yi war a mujj retenir ngir mën leen yóbbu fa li nga xamante kon moom moo ca Yamoussoukro puis tamit 23 euh, champions d'Afrique ñoom ñoo ci teew juróom rek ñoom ñoo ci absenté 4 euh, champions d'Afrique Ah, pour dix joueurs loolu la yenn kaay bi daal di ñëwaat et puis tamit club bu mag na AS Pikine ah, prendre kon li nga xamante rek mooy ses responsabilités ah. Hmm. daanaka léegi tey ñu nekk ci pay ci championnat bi. Hmm, baax na ñu dajeeg suñu lamb ñaari point xaw ma ñett la ñu leader leader bi jiitoo. <laughs> ah merci merci beaucoup sëñ Cheikh heureusement que t'es là atia ñu jeexale. bon ñu ñëw di gis nga ko mel ni Reug Reug open press en image ah démb kon moom mii di Reug nga xamante ni moo war a daje ak Bombardier ah, am na li mu doon def daal ngir rek fële nga xamante fa la dëkk ca jàmm gën ak banlieue ba daal ngir wane dooleem moom mi nga xamante ni kon moom mooy sëñ Reug Reug il bande les muscles et menace mel ni kon beneen yoon xëy na di gars yi dem Mbour. incha allah moom moo mën a wax fu mu toll. bàyyi foofu incha allah bu ñu catu sànq ba léegi yaa ngi ñuy catu merci beaucoup Chérif ba ci kanam. alors Mortale dañuy taxaw ci beneen actualité ñu ngi wax euh, rek ci mbirum Ousmane Sonko ci wàllum yoon ak état du Sénégal bi waroon dem.